ci nettali parce que affaire la yoo xam ne man man li maa wax j'étais son premier collaborateur suñu mbir dafa dafa taxoon li maa wax nii lu ma xam la yëpp su ma koy wax sama ram dafa bëgg génn parce que Moustapha Sourang ku baax la wo nit ku baax c'est un grand humaniste beneen bi may jeexale parce que man yi may wax yu wóor la lu mu def ñu daal di ñëw mais ñu jàpp ka ci dans un lycée mais mun ma waaw mais mun ma gis nga kii gis nga kii boo ko tëjee ci kasu bi léegi wala nga jàpp ko waaw ñëw njabootam nan lay dunde Moustapha Sona li nekk ci moom kenn mënu koo wax yëpp moo laa leen bëgg ngeen ngeen yëkk te li ma leen wax lu dañ lu wóor la loo xam ne dama ko fekkee liggéey ci léegi nag li ci des nag nee naa la professeur yi dañu bind benn livre livre bi mu sëriñ Cheikh Cheikh Mbacke Soxna dañ leen wax léegi li ci nekk defe naa ni daal dans quelque temps livre bi dana génn. ci Moustapha Soxna man nga ci wax pendant longtemps parce que nit ku baax la nit ku baax la mais c'est plutôt un humaniste c'est-à-dire moom dafa bëggoon nit. man dama ci am ay firnde yu wóor parce que dama nekkoon ak moom maa doon son premier collaborateur suñu mbiru dafa takkoon dafa am benn bés léegi damay def des témoignages précis ay affaires yu ma vivre ma bëgg leen ko baaxe dafa am benn bés concierge bi ñëw ni ma mais am na benn lafañ boo xam ni ca suuf la jóge mi ngi yéeg escalier yi mënul yéeg mais neen dafa bëgg ñëw ñëw sa bureau man waaw mais kooku waaw nañ ko dimbali mu yéeg ñu dimbali ko mu yéeg di raam di raam ba ñëw sama bureau ñëw ni ma monsieur Diop ma ne waaw mun ma man dama bëgg ñu jël ma ci jàngalekat yi mais boo ko gisee sa yaram dafay daw mi ngi raam nga xam ni kii pour mu doon doon jàngalekat lu jafe-jafe la d'abord bu duggee ci classe xam nga xale yi ni mel. et eh, mais na ngaa ci tableau bi ak yeneen ak yeneen mu ñëw ni ma waaw monsieur Diop dama bëgg nga xool ma ministre bi ni ko man dama bëgg ñu jël ma ci jàngalekat man waaw mais yow loo am kon diplôme ma en dem naa ba troisième ñu koy jël ay volontaire dama bëgg ñu jël ma ci waaw foo jógee mun ne man Casamance laa jóge waaw koo xam fii mun na xamoo fi kenn waaw fooy dëkk fooy fanaan mun ni ah dara laa amul aw ma dara aw ma fu ma fanaan su ma doon fanaan si sa bureau bi fi fanaan mu doon affaire bu doy waar ma ñëw seeti mini éducation inclusive nga xam ne temps yi lañ koy wax gis ngeen temps yi ci baccalauréat bi ñu jël ay euh, euh, ñu dul gis ñu liggéey liggéey ci braille ñu wàññeeku ñu boole leen léegi la ñoom boobu concept éducation inclusive maanaam kenn du ràññanteel nit ñi jël ber ñi nga xam duñu gis ber ñi nga xamee lafañ lañu léegi dañ leen dugal ci classe yi mais Moustapha Soran boobu temps ni ma leen waxoon ne humaniste la moo dal di taxaw ni ma déet kii nañu toppatoo affaire am ñu daal di toppatoo affaire am ma ni waa mais kii fu ma fanaan mun a si dañ ko tul fu mu fanaan mais nit ku baax la koo xam ni mais toppatoo affaire bii man dama sax waaroo gis nga bi mu nekkee recteur xam nga dans son budget recteur dañuy am benn chapitre boo xam ni c'est pour ses voyages pour buñ ko invité muy dem mais budget boobu daanaka mosu ko laal parce que moom bëgguloon voyage Moussa Sonna da nga koy pousse avion bi bëgguloon voyage man représentant na yu bare bare à travers le monde ay colloques yu ñu ko invité mais bëgguloon voyage daawul dem fenn mais budget boobu daf ko jël jox ko les professeurs de la faculté de droit jo def ko ay bourse ñu dem à l'étranger jeexal seen thèse Moustapha Sourang liggéey lu mel noonu Moustapha am na yi ma wax man affaire yu ma vivre la moo tax c'est des témoignages précis yu ma vivre fekkee que yoo xam ne maa yore dossier yi euh, benn bi le proviseur du lycée de Kédougou foofu dama fanaan dem Kédougou doon noon un lycée technique important lycée technique boobu dama daan dem yeewu jël oto ñëw Tamba fanaan dem Kédougou def Tamba Kédougou alors maam benn bés rek sama bureau mu am kenn ku fa nekk ñu ne mais yow xanaa gisul ne sa gannaaw man lan la ñu ne kañ benn waay bu tëdd la ma daal di génn mais dama waaru parce que c'était le proviseur du lycée de Kédougou couché derrière mon bureau ma ne waaw mais fekk xam naa ko parce que dem naa Kédougou waaw mais sëñ bi mais lii laa mun dama feebar man mun naa kañ damay dee man deet mun naa kañ dama feebar du cœur dañu war opérer su may wax loolu sama rak ma dafay bëgg génn dañ ma war opérer ma ne waaw mais mun na ah enkañ ma daal ñëw gis ministre monsieur le ministre on a un problème wax ko ko mais dafa daal di taxaw UCP xam nga booba temps itam c'était un peu difficile parce que nii ci saa si rek nga jël problème am jël un billet d'avion defal ko jël ay dossier médical am wutal ko un accompagnant mu dem faju ji c'était ba peu difficile mais dafa dal di taxaw fa saase ñu toppatoo ko en quarante-huit ñu jël waa ji mu dem parce que man yi may wax yu wóor la lu mu def alors benn bi dafa am benn waay boo xam ni benn journaliste yow rek ñu def la baccalauréat ba noppi rek bu bac ba naan commencé daf ma naan yow sa bureau dama bëgg nga déplacé ko yóbbu ko office du bac dégg nga nga dimbali le directeur parce que bac bi compliqué na alors ñu def noonu ñu dem ba bac bi jeex rek ci biir bag bi benn journaliste daal di génne benn article daal di ni am na fraude am na fraude parce que l'épreuve de philosophie mu ni ñaari épreuve dañu génn e bind ko ci journal ñu ñëw indil ma ko ma lire journal bi ma ni mais ma dem seeti journaliste bi di laajte di laajte mu ne Medine ma dem di yëg baag ci moom ne ko mais yow yaa bind lii mun waaw man kay yow li nga bind foo ko teg yow da nii donc il y a deux épreuves de philosophie qui sont sorties waaw tu as l'épreuve mu ne ah man dañ ma ko man dañ la ko wax bon ma daal di ñëw sama bureau daal di bind sama plainte immédiatement bind plainte parce que ñun amoon na ñu itam ay moyens yoo xam ni on est euh, euh, euh, avec la DIC également parce que ministre woon dañ la joxoon benn numéro de téléphone ni en card de problème et autres ñu daal di ñëw ma bind plainte bi non kii dañ ko poursuivre ministre bi yëkk bi ñëw ba ci courrier bi mun a déet man mais kii xam nga lu mu def mun a déet waaye tir na ci man déet mais c'est grave cette affaire là suñ ministère moom la yàq mais nii la def ba tey sax nee nañ ko bàyyi. yooyu li mu ci def kenn mënu ko nettali affaire yu ma vivre la man yu ma vivre la dernier bi ma jeexale mooy xam nga rek gaañ yi am na ci ñoo xam ne dañoo def des malversations financières moom benn waay bu ñu jàpp un intendant je ne peux de non et je ne peux pas citer également de euh, de de ñu koy jàppee dama bëgg ñu ñaanal ko parce que li mu def li doy dafa bari te man xam naa li mu def yëpp Bordeaux ak man bi mu nekkee ministre damay invité fi kenn du ko xam ñuy liggéey ak recteur bi fii université ñaata yoon la woo ma ñëw ñuy toog këram fii en en face Madeleine hôpital Madeleine liggéey ba guddi ma ñibbi ci affaire université parce que li mu bëgg a def ci université bi xam naa ko te lu baax la li mu def ci université dafa baax monsieur Samb yow ma sura moo ma yow ma ñëw seet si la Thiès fii moom la ñu wër Sénégal yëpp dem Gaston Berger ànd ak vice président université Bordeaux ñu ñëw ñu ñëw foofu ñëw Dakar ñëw euh, euh, université Gaston Berger jaar Touba mu ni dafa bëgg a gis Touba Touba bi ñu détourné dem Touba ma xam ni loolu ñaanam la aussi tubaa bu nekk vice président xamul sax fu Touba la ñëw Sénégal li ma dama bëgg a gis Touba man ko nañ def te loolu ci ñaanu su bari na lu ma mën a wax fii mais dama koy gàttal ñu ñu ñaanal ko may ko wër gu yaram gudd fa euh, mu dem àjjana baal na ma ak ah, li ma taseeg fii ñëw vacances ñu ni ma tey journée bi pour ma bàyyi li may def yëpp ñëw parce que xaw moon dina am chance boobu léegi livre boobu ñuy wax bi nga wax monsieur Diop bokkoon naa ci far malheureusement ñu opéré sama bët ma fàtte ko ba léegi xaw moon sax ni yegsi na ba fii damay ñaan dimbali ku feebar ñëw sama kër moo ko indi en ah, sama collègue gis naa ko ñu mu jox bourse yooyu yëpp mënoon naa ci toog ay quinze minutes parce que dafay lu yéeme te moo ko def donc comme loolu loolu wax nga ko monsieur Diop te ma vivre ko ñu bokk ko noonu ma gàttal wax bi mais vivre naa yooyu laaj na ma liste suñu amul doole ñoo xam ne seen i mbokk amuñu doole pour ma jox leen bourse France ma jox ko ko mu jox leen bourse ñoo xam ni seeni i papa ak seen yaay ay paysan lañu ma leen di jàppale mun ma bàyyil jàppale bi mënoo ko dañoo bari bàyyil ma jox leen bourse parce que ñoom ñoo ko weloo yooyu yëpp mën naa ci dem mën naa ci dem mais damay gàttal wax bi man Moustapha xaw ma koon kii laa maa ngi ko xamee ci Ibrahima Gueye mi dëkkoon fii nekk lycée muy ñëw Tivaouane fa ma jànge primaire di ko seet si vacance ca laa xamee Cheikh muy jóge Paris HEC je crois ou de grandes ESSEC voilà ñuy waxtaan ci yu bari philosophie littérature ci laa la xamee mais xamoon naa nag kër gi parce que sama papa bi doon liggéey fii chemin de fer Abdou Kader Fall moo ma ni woon soxna bindu sunu mbokk la de ko seet yi mu koy seet si xaw ma woon ma koy certifié ba xam Souran pour gàttal wax bi maa ngi xam Souran bi mu jigi Moustapha bi mu jógee France mais avant mooy jógee France dañ ma woo université ni ma am na kuy jóge France yaay jël poste ah man leen man maa ngi commencé jàngale fii du ma dem te man France du woon sama jëmukaay affaire bi jaaxal ma trop bu ma fi suñu benn xarit bu ma noboon trop ma ne demuma affaire xale rek ma ne du ma dem bi mu njibisee recteur bi ni ma il faut nga dem parce que poste bi yow la te post bi Sénégal la ko moom te moom moo ko occupé woon day ñibbisi ah ma ni kon naa dem ma dem seeti ko ñu waxtaan mu ni ma te loolu laa bëgg a wax pour gaaw pour gaaw ñu waxtaan ci yu bari mun ma dinaa la boole koo xam ne boo ñëwee ci ñi ma xam ci ñu jàngale foofu sama xarit la woon ñooy nekk tout le temps dina la dalal wan la ni muy demee mais lim ma wax loo xam dama ko jàpp ba pare étudiant buy ñëw Sénégal bu ñu ma booleel muy góor di jigéen loolaa lay wax daf ni ma sama papa daf ni ma woon bi may dem France wala yaayam xamatuma kan la baaleen ma ni ma dëkk boo xam ne boo ko demee ñun la am histoire bien moytu ko boo xam ne boo demee dañ ne fool bu baax a baax mooy tul ma loolu ba léegi mu ngi sama bopp moom looloo ma sooyee ci dëkk fépp fu mën di nekk su ma gisee lu ma xamul looloo ñëw sa bopp ma xam ni Moustapha mënuma ko gërëm mënuma ko sant mënuma ko fay parce que kooku ko def ci bopp nit ak danger ma fa nekk ya ma fa wër la ma fa jàngale ba léegi man rek maa fay nit ku ñuul li ma wax loolu ba léegi dama ko jàpp te fépp fu ma ko gisee affaire day ñëw ci ma daf ma sauvé te moom ci boppam buy ñëwee Bordeaux comme li nga wax léegi monsieur Diop tubaab yi dañ koy bëgg a invité ay quinze personnes ci professeurs yi te moom bëggul voyager ñetti fan lay def dama koo dama mën a satisfaire ñëpp